ministère gàlloo wërgu-yaramu askan wi ak action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci junni ak juróom fukk ak juróom test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk benn ñoo ci positif maanaam juróom yi di ay cas contact fukk yi di ay cas importé ñaar yi di ay cas communautaire ñu gis leen ci jurbel ñett Fatick ñett Kaolack ñett ñaar ci Géejawaay ñaar ci Liberté 6 ñaar ci tuuba ñaar ci Dakar Plateau benn ci Parcelles Assainies benn ci Mbao benn ci Yoff benn ci Pikine benn ci Mariste benn ci Tivaouane benn ci Mermoz benn ci Xombol benn ci Sicap Baobab ak benn ci Joal fanweer ak benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci service réanimation ci bésu démb ñeenti malaat ñàkk nañ seen bakken ci feebar bi ñuy wax coronavirus ci suñu structure de santé yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal waññi na juróom benn junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeenti cas yu positif ñeenti junni ak téeméer ak juróom-ñeent ak ñett ñoo ci wër juróom ñàkk ci seen bakken mu des ñaari junni ak juróom-benn fukk ak ñaar ci suñu hôpitaux yi ñu leen di traité ministère bi gàlloo wër gu yaramu askan wi ak action sociale mu ngi dellu di ñaax askan wi ñu gën a sàmmanteeg tegtal yi nga xam ne moom lañuy joxe bés bu nekk